alhamdulilah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu cosaanu feetu bi bi insaanul kaamil bi boo feeñuloon ñun danañ niil kon day danañ daje naasoon seri bara amaay aouzu billahi min alsheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim eh, ñi ngi di julli ci sang-sang yi yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi di sant yàlla ci cheikhna ahmadi tijaani radiallahu anhu di sant yàlla ci mawlaana cheikh ibrahim Baye su ngeen gisee jotaay bii nga xam ne am nañ ko ci ndigal li ki nga xam ne mooy xaadimul umma cheikh Mouhamad Mahi nga xam ne yàgg naa leroog suñ baay ba cheikh Hussein loolu buñ ko nattalee ak tey dana mat ñeen fukki at boobu yàgg na lool ci timit e, teewaayi Cheikhna Ahmed Tidiane Cissé imam al bi ci teewaayi porte-parole Cheikh Mahi Cheikh Ali Cissé ñi ngi nii tey toog njabooti xaaji Ousseynou ci seen roon xalif muy Cheikh Mouhamad Lamine Cheikh Alxaaji Ousseynou Niass tey di nag jotaay bi ñii fi toog ñoom ñoo uutu njaboot gi yépp ki nga xam ne moo fi nekk mooy alxalifa Cheikh Mouhamad Lamine bu teewee mënoon na uutu njaboot gi yépp waaye ca peggam Cheikh Abdoulaye Niass mi ngi fa toog nga xam ne tey jii moo amee kàddu kër gi di porte parole kër gi euh, tey kii wax ak yéen muy Ousmane Niass moom moo amee lépp lu aju ci organisation kër Cheikh Hadji Ousseynou ki nga xam ne moom laa leen roog ni muy El Hadji Abdoulaye Niass moom mooy attaché de presse mooy attaché de presse lépp lu aju ci presse rek ci loxoom la nekk kii toog nii mooy bay mbay juuf suñ mag la di doomi roxo Cheikh Ousseyn ki toog nii mooy Mo Touré kon nag ñooñu ñoo teew tey fii ci jotaay bi di wax ne guddi zikkar xaaj Hadji Ousseynou Niass nga xam ne mi ngi ko doon leeroo baay bu sell ba Cheikh Mouhamad Mahi ñi ngi ko jàpp euh, le cinq Euh, ci weer bi di ñëw le 25 juin di ñaan yàlla ñu àgg ci ci jàmm di wax ne jotaay kii bi nag euh, zikkar ñi ngi ko tuddee ki nga xam ne mooy le premier magistrat de la ville muy le président Serigne Mboup di wax ne ñi ngi oo bépp autorité boo xam ne yaa ngi ci dëkk bi muy ñi ngi oo ki nga xam ne mooy monsieur le gouverneur di oo monsieur le préfet di oo monsieur le commissaire central di o le responsable départemental nga xam ne mooy benn Bengelloune di oo bépp homme politique boo xam ne nekk nga fii ci dëkk bi di oo waa dëkk bi yëpp pour ñu fekkee si guddi gii nga xam ne guddi zikkar la guddi tudd yàlla la nga xam ne tey jii Cheikh Mouhamad Mahi moo koy teewe waxtaan ci ak jaam yàlla yi delloo leen ci yàlla guddi goo xam ne la nag guddeeg faj aajo la kon nag loolu moo dawoon woote bi di ñaan yàlla yàlla nañ ci àgg ak jàmm وما ذلك على لايب عزيز اللهم صل على سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق حمده الحمد لله على جميع مراتب الحمد فالحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأخيار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واغلل عقدة من لساني يفقه قولي Eh, mbokk yi gannaaw buñ sante yàlla julli ci yonent yàlla muhammad salawaatullahi wasalaamu alayhi eh, ñu ngi nuyu ñëpp kenn ku nekk ci turam ak santam ci ndigal yi cheikh mouhamadul amin cheikh rabi seydi ñas coobare yàlla gi ñi nga xam ne mooy kilifa njaboot gi tey ñi ci biir ak ñi ci biti eh, comme ni ko cheikh ousmane waxee nga xam ne mooy président comité d'organisation guddi gi oot na ñu ngi war a oo ci administration oote bii nag ñun ñuy def mooy bañ daan def rek at yee ko jiitu ci ndigali sëriñ bi Cheikh Mouhamadul Lamine mii nga xam ne tey moo toog toogaayu Cheikh El Hadj Seydou comme ni ngeen ko xamee guddi gi guddeeg zikkar la borom moom mi nga xam ne moo ko daan ànd ak ñun di ko dundal yàlla na yàlla yokk leeram taas ñu ci barkem Cheikh El Hadj Seydou daf daan wax ne buñ ko tuddee lemeen lu du zikkar bàyyi zikkar la ma waxoon. ba léegi loolu la ñi ngi toog nag tey ki nga xam ne moo nekk ci boppu njaboot gi gannaaw buñ jëlee ndigal ci moom mu jëlee ko ci xalifatu saaxibul fayda eh, xaadimul umma wa mu rabbiha cheikh Mouhamadul Mahi cheikh Ibrahim Niass ñi ngi ñëwaat di oote oote boo xam ne suñuy mbokk la ñuy oo ëllëg fayda la oo niti diine yi la ñuy oo ñi nga xam ne ñoo ñoom ñoo bokk pay bi la ñuy oo ci bés bi nga xam ne seen bés la. ba si tudd yàlla rek la tudd yàlla nag bëri na ay ngëneel yoo xam ne ku ñëw ca bës ba dëgg yàlla bu fekkee danga nga sa sayru dafa taxaw boo ñëwee jàkkaarloo Cheikh Mouhamadul Mahi Cheikh Ibrahim Niass dana la tëbb boo delloo da nga xam ne fi nga nekkoon bokkut ak fi nga ne léegi eh, bés yu mel nii nag bu amee dafay am ñoo xam ne ñoom lañ ko darajaale ak ñoo xam ne nañ leen ci rendre hommage di leen ciy fàttalu fàttaliku kiñ ko darajaalee Cheikh Ousmane wax na leen ko léegi mooy le premier magistrat de la ville de Kaolack Serigne Mbuub di kenn ci kër gi di soppee kër gi xool kër gi lool bopp lum ne rek dana ci wax ak waa kër gi ñu ànd ceeg moom ñaanal ko yàlla digal ko ñi ngi ci rendre hommage ñoo xam ne dañoo jiitu yal na yàlla yokk seen leer te yërëm leen euh, yéege leen ci aljana gi gaw a kawe euh, ki ci jiitu di alaaji Babacar bi tey doon denc kenn ci njaboot gi di taawi kër gi di Seyda Roqi bu Cheikh Alaaji Seydi Ñas ka ca topp di eh, alaaj Tamsir Thiam di suñ nijaay di doom ci maam Ngañ Thiam ki ci topp di mbay awo bi tey nekkoon kenn ci ñi nga xam ne it daan dawalal baay doon denc suñ tante Ndey Ñas ñoom ñëpp di ay liggéeykati xadara bi keneen ki ci topp di xaadimatul quran muy sayda fatumatu haydara nekkoon di soxna Cheikh Ahmad Daam Ibrahim dañ koo def rek pour fàttaliku leen ñaanal leen yàlla comme ni ngeen ko xamee yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne woon na ida mata in xata amalu ila min salaasin sadaqatin jaariyatin aw ilmin yuntafau bi aw walidin saalihin yadoo lahu bu génnee àddina léppam dafay dog ba mu des ñett doom ju baax ju koy ñaanal gannaawam sarax soo xam ne def ko bàyyi gannaawam ida maata bnu aadama in xata amalu ila min salaasin sadaqa jaariya mooy ku mel ni teen boo gas ñu koy jëriñoo gannaawam walla doom ju baax ju lay ñaanal walla xam-xam boo bàyyi gannaaw ñu koy jëriñoo ñii nag ñun dañoo jàpp ne ci seen njaboot lañ bokk ñun ak seen njaboot a bokk lépp dem nañ ñun ñu deseli fi ñu leen di ñaanal yàlla woote bi du gudd li yëg rek la di leen di fàttali yaakaar naa kenn fàttewu ko le vingt cinq la incha allah ñi ngi ñaan yàlla yàlla may ñu tal ak fekkee ñu dugg ceeg bisimilahi rahmaani rahim génn ceeg alhamdulilahi rabbil alamin ñi gërëm ñëpp di sant ñëpp di ko jëgal waa biir beeg waa biti bi waa France waa Afrique du Sud waa Angleterre waa Argentine Amérique Brésil ñëpp ñi ngi leen di yëgal bés bi bési coobare gi bési ñëpp la coobare yàlla gi melo la ci melo bàyyi ci ku salaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñi ngi jox Cheikh mohammed Lamine mu ñaan ñu yëkëti jotaay bi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ورق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراط مستقيم وعلى اله اقى قدره من دار آله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله أقضيه من دار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله أقضيه من دار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين insaanul kaamil bi boo feeñuloon ñun danañ miin kon day danañ daje naasoon sëriñ Bara am